salaamaaleykum téléspectateurs et téléspectatrices Yegle TV dans les ak jàmm seen xibaaru président parti bokk gis-gis Pape Diop jàkkaarloo na niki tey taskatu xibaar ngir euh, wax rek lepp li nga xamantene mom mo jëm ci walu rejet liste parrainage bi nga xamantene déposé na ba tax na bu de sukkandikoo ci kàdduwam jàpp na ni vérification bu conseil constitutionnel ci lu jëm ci fichu parrainage yooyu jaarale ñu ko ci yoonu ku ñu fa teewaloon di Alioune Badara Dieng ak Amdi Moustapha Niang njiital parti bokku gis-gis daa dina amal ab janook taskatu xibaar yi solo bi moo di mu dellu waat ci li tax candidature am ñu daal di ko gàntal ñeel présidentiel yu 2019 te mu ko ci conseil constitutionnel. bi ñu convoqué suñu mandataire mu dem pour jël notification ah jël nañu temps parce que dañu bëggoon bu ñu demee bay jàkkaarloog nit ñi wax loo xam ni danañ ko mën a dégg.

pour cas bu njëkk bi ñooñu bi ñu xoolee ci ñoom document yi ñu jox am na ñoo xam ni gis nañ leen ci yoo xam ni seeni carte d'identité seeni photocopie carte d'identité mi ngi ak ñun am nañu carte d'électeur am nañu lieu de vote am nañu lépp kon nag loolu ñun mënuñu ko expliquer bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom waa conseil constitutionnel ni ñu càmbare ay fiches yu jëm ci wàllum parrainage am jaarul yoon. loolu li ko indi mooy euh, dafa am loo xam ni euh, dañ ko mettroon en œuvre ñoom président Macky Sall ak gàngooram parce que bala ba mu dalee di wax ni premier tour ba tey di ko jéem a organiser seet du koy doxale ba ministre am wax ci loolu war na leer Sénégalais yépp euh, lolo tax logiciel bi nga xamni mom lañu la société civile xamul lu ci nek conseil constitutionnel xamul nuñ ko défaré daf mi ngi leen di jappalé ci ci contrôle bi ADIE mi ngi leen di jappalé daf sax ay fonctionnaires lañu yu neutre waaye ADIE directeur ba. APR la Nous leen neex lañ koy manipuler ku ñu bëgg mu jàll mu jàll ku bëggul du du président bi di Bahul, bahul, parce que momul réew mi mu yokk ci ne ay avocaam da dinañu déposer ab recours conseil constitutionnel avocat yi dembu dem nañu def recours pour ñu sétane bir mom. Amna journée comment ça 1543 également Yo xamni dañu wax ni ci région bi len bind nekkuñu fa Waye ay électeurs lañu bu bisba dañuy voter. Lol sax conseil constitutionnel wax nako ko ci limu ñu jox ñoñu euh le ministère de l'intérieur parce que le ministère de l'intérieur a fait des modification sur la carte électorale te loolu ñun yéen élection 2017 élection législative Nous gis nañ ni électeurs du Sénégal Si ñu demee le bureau de vote ñu ni nekku leen fi fekk ñoom Nous pour dérouter gens. njiital parti convergence démocratique bokku gis-gis fas yéene naa wéyal xeexam ba ba muy am ndam ci noonu Papa Diop dellu di sàkku ci ñi ŋànk conseil constitutionnel ñu fexe ba fiche parrainage am yi nga xam ne dañu ko gàntal ñu daal di ko nangu ci nu mu gën a gaawee teg ci itam daganalaatal lii di candidature am ngir mu mën a bokk ci présidentielle yu 2019 Qatar dañu bañ a bàyyi ki nga xamante ne moom mooy candidat bu parti démocratique sénégalais fas yéene bokk ci jongante élection présidentielle bu 2019 di Karim wadd bu ñu sukkandikoo ci kàddu autorité Qatar yi jàpp nañu ni passeport kii di Karim Wade moom expiré na yàgg na ñu yokk si ni fu mu toll nii. passeport bi nga xamantene mom yor nako di passeport France fu mu toll ni mënu voyager ndax mom Karim Wad dafa renoncer nationalité française am ba tax na ñu samp ab di wax rek ne ndax Qatar ñom ñoo euh, empêcher ki nga xamantene mom moy Karim Wad tek tankam fi ci Dakar am déet ci ay leeral ñu tewlu ci récit bi. Karim Wade tere nañ ko mu génn ci Qatar ba tax candidat bu parti démocratique sénégalais ci jongante élection présidentielle du 2019 moom mënatul teg tànkam fii ci Sénégal li ko waral rek moom mooy autorité Qatar yi luñ si jublu rek moom mooy fas yéene ba taxal ak protéger lépp lu jëm si relation diplomatique seen diggante ak Sénégal bu ñu sukkandikoo ba tey seen Karim Wade mënul voyager ndax passeport bi nga xamante ne moom la duggee foofee ca Qatar expiré na yagna na ba na ñuy wax rek ne doomu président Abdoulaye wadd moom fu mu toll nii passeport français bi mu yor nii baaxatul ndax li ko waral rek moom dafa renoncer nationalité bi ñu am ca France autorité Qatar yi sukkandiku ci loolu yépp te tax ñu bloqué Karim Wade foofee ca Qatar. ba tax na ñuy samp ay laaj di wax rek ne ndax Karim Wade dañ ko tere mu génn Qatar wala sax moom dafa toog Qatar googule ndax xam ne bu ñëwee Sénégal di koy xaar rek moom mooy dugg ca prison waaye lu mu munti demee gis nañu ni information bi nekk na li nga xamante ni dina yëngal bu baax ku jee politique bi. ba tey ci politique bi la ñuy desandi pour wax rek ne Idrissa Seck Malick Gakou ak euh, Madické Niang ñoom nag dañuy jaar ni ki mardi foofee ca conseil constitutionnel. ñetti candidat yooyu ca jongante élection présidentielle bu 2019 ñoom dañoo fas yéene dem vérifier régulariser ay nombre de parrainage yi nga xamante ne am na ay euh, doublon maanaam ay nit yi nga xamante ne dañoo bindu ñaaxi yoon occasion la pour ñoom ñu mën a xam rek euh, fu ñu toll waaye nag bu ñu xoolee Hadjibou Soumaré moom fu mu toll nii mi ngi wax conseil constitutionnel ñu fexe rek ba taxaw def seen liggéey ndax moom jàpp na ni fu mu toll nii euh, mbiram moom war nañ ko seetaat waaye bés boobu tam mardi boobu tam la opposition bi euh, fas yéene dox ñaxtu fii ci dakaar li ñuy ngañ rek moom mooy lépp lu jëm ci wàllu parrainage bi niñ ko euh, jaarale mu nek mardi bi nga xamantene nak nag dina nekk mardi bu tang lol ñu tewlu ci récit ki nga xamantene mom moy Abdoulaye Timéra. niki talata, Idrissa Sek, Malik Gakou ak Madické Kenya la ñuy xaarandi ci conseil constitutionnel ñetti candidat yi bokk ci élection yi ñuy dëgmal ñom lañu autoriser ngir ñu régulariser yenn limu parrainage yi bàyyeekoo ci doublon ñu nemmeeku mo waral sen téway ci conseil constitutionnel talata juróom-ñetti fan ci janvier atum 2019 bu fukki waxtu 2019. mu doon ab daje bi nga xamante bi dina tax ñu gën am ay ci candidature bu ñu ci ab communiqué bu li jëm ci walu saytu li di liste parrainage yi gannaaw ba ñu jëbale ab bataaxal taskatu xibaar yi lii di euh, séance saytu liste parrainage yu ñuy déposé ngir daal di dëggal euh, li nga xamante ne moom moo di seen candidature ñu ngi koy amal ci conseil constitutionnel ci teewaay ay kàngam yi nga xamante ne bi euh, faruñu fenn te seen xam-xam dafa màcc ci lu jëm ci wàllu yoon élection ak euh, Lidi di xarala yu Nous di informatique ñi ñu recalé bayeko ci ay motif yu bari ci filtrage bu candidat yi conseil constitutionnel def qui dit di Idrissa Seck bu maître Modi Kenyan Malik gaku bu grand parti ñom am ñu possibilité ngir euh, daldi di ñi nga xamante bi mom modi yenn parrainage ngir ñu mëna bok ci euh, limu euh, candidat yi nga xamante bi mm, seen moom la ñuy saytu ngir sen jall ci parrainage bi néegi dirom ñoo étape bobulé ki di Macky Sall bu Benno ak Issa Sall bu Pire Karim Wade bu PDS Ousmane Sonko pour Pastef ak Khalifa Babacar Sall bu au Sénégal et Khalifa L'idée di coalition Djibou 2019 Mom dafa Daldi di jëbbal conseil constitutionnel ne de juum ndax nous bris, ci nous yi dañ leen déclarer ne te boole si dañoo ci euh, fichier électoral bi mo waral Hadjibou Soumaré ak euh, di yëkëti ay cadeau jëmale ko ci conseil constitutionnel bi ngir mu dàkkal bépp processus bu jëm ci walu saytu euh, candidat yi bayé ko ci taxawayu até àttekat ak am ngir ñu daldi sukkandiko ci lu bu ko faits, jar euh, équipe technique locale ak société civile ngir dindi et njumté bi nga euh, politique bi daje ci ab kurel Front de Résistance Nationale FNR mo fasciné am doxum ñaxtu ci ñetti fan ci weeru janvier atum 2019 ngir ŋàññi lii di euh, parrainage bés boobu nag day daal di fego ak ubbite bëpp euh, këru attekaay ci mim réew mu doon ab talaata bi nga xamante ne bépp njombe mën na ci am. société la ñuy waxandi pour wax rek ne tere bi nga xamante ne def nañ ko ci njaayum sachet plastique yi fii si Sénégal nekk na mbir bi nga xamante ne neexul ñenn ci commerçant yi ba tax na naka fu mu toll nii ñoom jàpp nañu ni li mu mel la bu mu amee rek loi boobu nekk na mbir bi nga xamante ne indi na leen ay jafe-jafe ba tax na ñuy ñaan nguur gi rek mu jàppale leen waaye tam accompagner leen ci lépp li nga xamante ne moom moo jëm ci njaayum sachet yooyu. ndax gis nañu ni sachet yi ñëw fii ci Sénégal nekk na ab mbuus yi nga xamante ñu ngi koy woowee sachet biodégradable ngir ay leeral ñu teewlu ci reportage Djibril Dem ak Amdi Moustapha Niang ginnaaw bañ leen tere ñu jaay mbuusu plastique yi lii ñi nga xam ne ñoom ñooy jaaykat yi sonnoon nañu loolu ñoom ñi le sax ñu ngi xam leen ni loi bi lee nekkul woon la gën. àllankoor bu bëree bëri bëri sax la def si ñun ndax mbuus yi ñun wax dëgg yàlla buñ ko danañ métti suñu ñoom ndax mu li si dund macha allah mi ay centaine de million ñoo si dund ndax am na ñoo xam ne yoruñu place si la ñu xëy ñëw ñu jox leen ñu dem jaar amuñu xaalis sax dañuy ñëw ñu jox leen ñu jaay bu ñu wàccee weer si ñu donc kon buñ ko interdee ju ñun la ñu lor ay millions de millions la ñuy seen ñoom ñi de ñu ngi sàkku ci nguur gi mu dawal yërmande. ñun daal nañu bàyyi ñu continuer suñu liggéey liggéey normal mus yàqu dara parce que surtout nag micro 30 micronage bi indi léegi moom macha allah mbuus bi balaa ñuy waxee un mois mu commencé seey commencé kii parce que par rapport ñun mbuusu ñuulu nooyi la ñu waxoon mais fu mu ne nii macha allah yàlla dimbal nañu bàyyi nañ ko léegi 30 micronage bi la ñu autorisé pour ñu jaay ko léegi nañ ñu fa bàyyi suñu 30 micronage mu ñëw comme doom ñoo ñëwee ñu ñoom ñu mën cee gis ba parce que mbuus ñun yegguñ foo xamante réew mi yegguñ foo xamante dañ xëy rek nañ bàyyi mbuus parce que amuñ leneen fu mu ne Sénégal ñoom min détaillé ndax ñun café juróomi dërëm sax dañ ko détaillé kooku bu ñu taxawee bëgg ñu interdit loo mbuus du ñu rek la lor ñeneen ak lépp luy jaay jëm ci sachet plastique yi le fii ci Sénégal ngir ñu mën a ñoŋal li nga xam ni moom mooy aalam gi waaye arrêt bi jaaxal na commerçant yi ndax na mu dikkee ci ñoom waaye ñoom ñi lee ñu ngi xam xamle ni sachet yu bees yi nga xam ne moom la ñu génne te ñu tuddee ko biodégradable li ni mel ñoom ñu ngi ci gis ci seen bopp waaye ñu ngi sàkku ci nguur gi mu jàppale leen ba seen secteur bi le gën a xibaaru biti réew yi tey di ñu yóbbu ca Mali RDC ak euh, France ñi ci ànd ak euh, Djibril Dème xibaaru bitim réew yi dañu koy doore ca Mali ki nga xam ni moom mooy njiitu réew moom la di Ibrahima Boubacar Keïta moom mi la dem na ci aljuma gi ci village bu Koulogon te nekkee ci région bu Mopti fa nga xam ne rey nañ fa lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari pël premier janvier bi nga xam ni moom la ñu génn attaque bi nag dañoo jàpp ñi ko def mooy rëbbkat ya bokk ci giir gi ñu naan dozo RFI ginnaaw ba nga xam ne responsable lu ko fa nekk bokkoon ñu bokkoon ci li ni ñoom ñi la jokkoon nañu ñoom ba ñu wax ne lan moo waraloon visite bi li dañu dem ba ca RDC ginnaaw ba ñu defee seen élection ñoom ñu ngi xaarandi résultat yi lee ba tey ndax génnagul waaye ñu ngi jàpp ne ci dimanche kii ñu jëm fa résultat yi fas yéene génn waaye bu fekkee ci côté ku jégilee moom ñu ngi woy rek di xam ne ni am nañ ay cas de yu bëri gis nañ ko ci waaye tamit ci centre de vote yi nga xam ne moom moo nekk ca bërëb yooyu la caxat-caxatee nañ fa lu bëri xibaaru bitim réew yi li dañu koy jeexale ca France ginnaaw ba ñu ko bindee bataaxal di ko xamle ni dinañ ko rey te dinañ ko dóor bal ci boppam député français bii di Jean-François mbay te bokk ci majorité bi moom xamle na ko ci constitué te moom xamle ni dina porter plainte ginnaaw ba ñu ko yónnee ab benn lettre bi nga xam ne kenn signewu ko te kenn mandargalu ko te bureau ba nekk ci assemblée nationale moom mi sax ginnaaw ba nga xam ne courrier bi pale bu Bourbon ñoom it ne jot nañ ko wane nañ ko ci compte Twitter moom mi la liñ koy toppee mooy dañoo jàpp ni rek dañ ko utiliser mu bokk ci ay. publicité yi nga xam ni day wane ni France du dëkk bi nga xam ne dëkku raciste la lii moo nekkoon xibaaru bitim réew yi lee téléspectateur ak téléspectatrice Yegle TV lii lañ leen indiloon seen xibaaru guddi ñi leen di gërëm ci seetaan bi di leen bàyyi programme Yegle TV